mais je suis un homme politique je suis un administratif su ma administratif waxee dama ko def bu fekkee ne politique la j'ai pas peur mais kii ngeen gis barki démb dañ ko ba wax ci man mu amul frein il se retrouve là dans une situation indélicate pour une première sortie bi nga xam ne war nga wax fan ngay yóbbu société bi ngay xastante tu n'as même pas le temps fait comme au moins lu fa Moussa Diop def mais nekk ci loo xam ni du sa wareef bëccëg ñu accolade la mon frère gis ngeen suñu passation bi même avant la passation vous nous voyez tous les deux jam ñaaju ñuy def ay nuyoo tànk oui je le prenais man nu ma lay gisee noonu laa lay jëlee ba nga wan ma leneen boo ma wanee leneen ma wan la qui je suis c'est pas parce que j'ai parlé du troisième mandat qu'il y a des mercenaires téméraires pas courageux téméraires di dugg ci loo xam ne da leen ëpp doole kii dootul <laughs> bu génnaatee dootuma ko tontu parce que yëfi leer na nañ du ma morom président Macky bu fekkee ne yaa yónni waa ji fekkee say équipe du ñoo ko yónni xam nga yan saa yi ñu demay Iran Irak gis américain yónni fa soldat Rayane yàggee ne allo soldat Rayane mu tontu. oui angle tel position tel oui soldat Rayane lendemain mu tontu. waaye bu ñu woowatee soldat dégg dégguñu ko xamal ne on l'a descendu je suis man gor la sama waxu démb mooy sama comportement tey dama ànd ak ki nga xam ne mooy kilifa réew mi muy wut debout contre le troisième mandat ñu am ay nit yu fi dee des martyrs on peut citer les Mamadou Diop feu Mamadou Diop on peut citer Baba Ndiaye de côté des policiers loolu yëpp c'est la preuve que man sama waxu démb mooy sama waxu tey buñ ma ne kenn dinaa dañuy politique politicienne kuñ ma yónnee dinaa ko contenir qu'ils arrivent à cent je les contiendrai man maa ngi ci kaw télé bi du ma fa wàcc Sénégalais xam na sama position sur ça les corps de contrôle de l'État ñëpp en leur nu ñu mën a toll kenn mësuma si épinglé te pourtant maa yomb euh, vérifier donc nee na ni moom euh, c'est un avocat il sa langue ak il est voilà Mister Buzz mais ça fait six ans rien RAS donc su ma ñëwee jël sama position ne lii ak lii d'accord ma ci ni ñu ko respecté mais non il faut que ñu envoyer la des gens yoo xam ne se comme ça quoi dans ce